Tapha Gueye numéro 2 lay bëre la champion de Fass. sama diggante moom dina mel ni Badar Gueye ma tamoon dameel dinaa la dóor ba ñuy seetaan dañuy neewi barki Serigne Saliou waaw loolu rek laa yàkkamti ci àddina loolu laa yàkkamti ci àddina parce que tam làmb bëre dóor lañu wax waaw man ay dóor ragal ma ko ndax manqué naa six bëñ yoo xamante ni lépp dóor la kon man dóor jaaxaluma ci àddina yow dem nga bàyyi ci àdduna soo ñëwee ci ngay bàyyi dem xam nga da ngay nuuru da bëri di nuuru damay ragal nga nuuru daje xeeru géej non du ma daje xeeru géej damay place ca kaw lay nekk <laughs> place ca kaw laay nekk dafa donde staatu no mo conozco pero con la gente pero con la gente que vive en España trabajarla Tú no eres español, tú no eres español. ¿Qué pasa, tío? Va para allá, por favor. Tú hablas mucho, tú hablas mucho. jël na ay cours te Ablaye Mouté bi wax ji bari la. <laughs> jël na yow doo espagnol yow loolu nga war a xam doo espagnol waxoon naa la ne. boo demee Espagne nga laajte leen chose bi fa amoon kan moo ko réglé ñibbi si toog. ban chose Espagne da nga rek lu garaaw laa lay wax. non nga boo jaaree Saragossa Torrevieja laay dafa jógee Espagne fii ñëw Ablaye Alicante ñoom ñëpp Espagne ba Espagne daj non vingt cinq personnes ñëw nañ. yow dégg yow yaay tarabaxaa du ma la xaar dama lay jàpp rek xar lu garaaw laa lay tegal noo xar sa bëri yëgu fa boo ma xaree ma bëtëg ni la tànga lay daan te yow doo ma jëlee yow kon man dinaa la daan naa la duma daan la maa ëpp fit yow mën laa xam nga ma bëri yow may yàpp ubbal sa gémmiñ. amatoo loo wax noppi sëy moo tax na ko mbëtte sax yow ma wul la bu yàgg fii. fii nii ah ñaa dof. caama tax mooy eh, eh. sax reetaan loo te bëgguma ree. Seydina Mouhamed yow. billaahi wallaahi taala. comme ba mu sa am. bi mo yow da ngaa bëri wax. ci fan lewetaay ngay mel ni mooy ne yow yow. yow wax nga moon combat bi li nga ci bëgg mooy nekk si di di. man wax laa mën maa la gën a wuyu maa la bu fit maa la dàq bëre. maa dàq fandi yow ngay sàcc nga taxaw leen photo